te fii ci euh, réew mi ndax tamit euh, li nga xamante ni saa su nekk bu ñu génnee def euh, ay déclaration dafay nekk loo xamante ni day def buum waral nag tey ma daal leen di seet ma daal leen indi fii ci filing Dakar ñu fas yéene sekk waxtaan bu yaato yaato yaatu ñeel li nga xamante ni mooy situation réew mi jamono ji Abdou Aziz Diagne xam nañ ku ne xam nga ni réew mi yëngu na loolu lu ko waral nag du leen lu dul li nga xamante ni mooy daan ñu ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ñaari atu kaso yoo xam ne daf ko fas yéene du moom ak Ndeye Khady Ndiaye waaye tamit dañoo am benn koo xamante ne Diagne anonymat la ci ci ci réew mi mu tudd ñu koy woowee Ani Anita Diop. Mm-hmm. moom dañoo seetlu à chaque fois bu dara waree xew jëm ci li nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. dañuy seetlu ne moom mooy njëkk a def les premières affiches wala itamit mooy njëkk joxe information yooyu. Mm-hmm. tey mu defaat benn info joxewaat benn information Abdou Aziz bu bu explosif xam le ni. Euh, d'ici quelques heures dinañ arrêté ki nga xamante ni mooy euh, Ousmane Sonko lan ngeen mën a jàngal ci Anita boobu. waaw comme ni ñu ko waxee rek euh, Anita peut-être mënuñ ci wax lu sori parce que gis nañ maintes fois. Mhm. bi ñu jàppee président Ousmane Sonko. Mhm. di am lu ñu métti nag ci réew. Mhm. parce que réew boo xam ne ne buur Sall muy mati Sall. moom buur laa ko jàppee. parce que defe naa ne doxalinam doxalinu buur la. parce que doxalinu buur weesuwul nga ne <clears throat> da ngeen may ñaan ci loo xam ne moomoo ko. kon doxalin bi mooy loo moom li nga moom ak liñ la boole. ak li nga bokk ak li ñëpp bokk mhm. bokkul. Mhm. mais da ngeen ne dañ may ñaan kon kooku li mu jàppee boppam mooy buur. Mhm. man noonu laa ko jàppee mais nag buur sàll bu APR comme ñun moom article quatre-vingt pour ñun la. mais du pour ñoom. du pour ñoom pour ñun la. léegi comme ni ñu waxee Anita boobu li ma ci mën a wax. dañ ko gis maintes fois bu ñu jàpp Ousmane Sonko wala bu ñu indi jafe-jafe Ousmane Sonko mhm. moom rek mu am exclusivité mhm. loolu nag mooy wane ne ay ndëgg sërëx yoo xam ne ne moom moom lañ koy jox te kooku ba léegi kenn mënu ko identifier mhm. ñii ne góor la ñii ne jigéen la ñii ne leneen la mais moom am na benn taxawaay léegi ñu jàpp ne nag gis nga réew li ko yor muy dëgg gis nga dëgg googu li ko war a jëmmal mooy li nga xam ne mooy jàmm réew mi ñun nag dañoo jàpp ne ne senegal mhm. li gën a métti ci réew mi mooy impunité Macky sàll 2012 bi ñu koy jox réew mi bu APR bi ñu koy jox réew mi mhm. dañoo amoon yaakaar ci moom am lu mu taxee woon am lu mu jaayoon sénégalais li mu jaayoon sénégalais ñëpp xam nañ ko da doon wax carrément ne le patrie avant le parti mhm. mais jàpp nañ bi mu ñëwee ba léegi doxalul. patrie mais parti lay doxal ñu gisaat ci say ay kàddoom dinañ jël ñëpp sama rakk duñ ko nome sama mag donc saa diir dire li nga xam ne ne lépp loo xam ne ne waxoon na ko bi ñu waxalee yàlla rek bi mu toogee ba léegi amut lenn lu ñu ci jëf kon ñu jàpp ne Anita boobu protégé la protéger la boo xam ne ne pour luy uññi wala loo xam ne ne peut-être dafa làq woon ci yéen ngeen xam ne ne seen liggéey la seen devoir la yéen a ko waroon def yéen a ko waroon gëstu mais yéen moom def naa taloo leen dara ak ay lacrymogène ak ay dóor moom mi nga xam ne nag dañ ko protégé moo tax muy génne yenn exclusivité yooyu ba nga xam ne ne àdduna di ko gis wala nàngam nee na dañuy jam jàpp ji Ousmane Sonko loolu la mm-hmm. nee na fii ak ñeenti fan fii juróomi fan mm-hmm. Ousmane Sonko ngi foofu nee nañ mu ngi këram te mu nga këram nañ ko dem jàpp yóbbu sénégalais yaa ngi ñuy seetaan buñ ko jàppee yóbbu li may wax kenn ku nekk yaay jël sa responsabilité gis nga Ousmane sonk ñoom bu dee mën nañ ko jaay doole ba toroxal ko ba jàpp ko ci seen bànneex parce que du dëgg ci seen bànneex lañ ko teg buñ ko mënee jàpp yóbbu ko seetaan sénégalais yëpp seetaan seen sutura ak seen teraanga ak seen xéewal bu nar a ñëw ci réew mi ñu bàyyi mu rëcc leen kooku ñoom ñun la engage ñun sénégalais ñoo warut a nangu ci dëkk bi buur sàll ak ay ñoñam di def lu leen neex mel ni comme ñoom ñoo ñu moom wala ñoo ñu jur wala ñoo ñu jënd parce que bu ñu xoolee bu doon Ousmane Sonko dafa def lu mu war a def ñu teg ko yoon amul problème ñun ñëpp ay sénégalais la. Sonko ginnaaw daan bi amoon na 15 jours recours. waaye ban 15 jours mhm. Ousmane Sonko li mu waxoon du tey lu ko firndeel waxul woon fii dëkk bi amul yoon yoon bi gëwuma ko procès bi lan nga ci gis aw na yoon wala awul yoon li verdict bi lan la verdict moral la. mais du verdigu justice parce que la taxoon ñu koy jàpp wala lu taxoon ñu def euh, ci appel à renvoi boobu noonu liñ ci bindoon dañ ne woon dafa violé ñaari at benn at bu njëkk muy deux mille vingt et ñu ne dafa violé jigéen biñ ko violé man jaañ solution kenn du ma ràññee ci ci lañ ma njëkk a ràññee ma dem défendre ko ci jàkkaarloo bi nga xam ne moment boo xam ne kenn ñemewu ko taxaw euh, kii ko ma jàppoon ne la ma jàppoon ak li ma gëmoon mooy sénégalais la am na luñ ko jiiñ muy sama chef de parti ma war a am nu ma ko taxawee ci dëgg nag mhm. ñu ne dafa violé benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon bu juróom yoon mhm. te bu may violé dafay indi pistolet ma ne man sama gis-gis mënuma gëm ne ne lu mel ni Ousmane sonkoon nit ku sell ne moom mhm. sellam weesuwul nga taxaw publiquement ne mësuma lekk dërëm bu ma lewul ku ma mës a ger taxawal nga wax moom du ko wax kilifaam ci politique du ko wax ña topp ci ñoom duñ ko wax. mu taxaw wax ko publiquement def 15 ans impôt et domaine. def presque euh, euh, plus de 15 ans. ci njàng nekk inspecteur et domaine. wax loolu kenn mënu ko demante kenn mu mënul teg benn dërëm boo xam ne la lekk na ko te lew ma. ne du jël sama lu lewu di ko jox sama njaboot. te dara ba léegi dara lu ko mën a dindi amul. te ak fi mu nekkoon nga xam ne fa la yi di buujoo. fa la jokkalante bi di amee. mais terewul lam ca waxoon lam ca defoon. Mhm. ñëpp gis nañ ko léegi nag ma jàpp ku seetlu ko ku mën a taxaw. Mhm. dem di violer ñaari yoon ba ñetti yoon ñeenti yoon ba juróomi yoon ma ne man sama xel mënu ko nangu loolu mënut a nekk waxuma nag du juum àdduna laay waxal waxuma du juum de ku dul juum yàlla bind ko kenn rek mooy dul juum muy sang wutee tedd bi sallallahu alayhi wa mais ku dul moom da ngay juum mais nag lañ ko doon bëgg a teg. ñu ne loolu sama xel mënu ko woon nangu moo tax ma dem défendre ko. Mhm. te ba ma ko défendre ma wax tamit public àdduna yëpp may déglu ku ko weddi jàppal le 12 février 2021. Mhm. ma ne barke sëñ Babacar si mooy yaakaar muy sama sëriñ di sama maam di sama wasila viol amul. d'accord te loolu ba tey jii nii dara dindiwu ko. Mhm. kon bi ñu joxee procès ñu wone ne viol amul kon wax nga jeex na. wax ba franku laay la nga mën a sànni ci loolu. waaw euh, concernant bon ci réseaux sociaux la ne. Mhm. comme ni ci ñeneen ñi nekkee. Mhm. <coughs> xëy na am na ay sources yoo xamante ni xëy na ñeneen ñi amuñu ko. Mhm. am na ñoo xamante dañuy relayer juste rek les mêmes informations yi nga xam ne moom la ñeneen ñi joxe wala boog li journalistes yi di joxe. mais moom fan lay jëlee première information tout en sachant que Ousmane Sonko bañ koy jàpp fële euh, au Sédhiou boobu moom kese moo fa euh, Ousmane Sonko moom moom laa wax ne xam nga man mënuma wax ne Anita Diop bërëb sàngam la jëlee ay sources mhm. mais li leer ba leer mooy ce sont des sources sûres pourquoi parce que saa bu ko génnee da gis effectivement authenticité sources yi nga xam ne moom la génne mhm. du dëgg mhm. léegi nag Anita Diop comme ni nga ko waxee anotin anonymat la kenn xamul kan la au juste non seen protégé la ah seen protégé la ah, non waxal rek Abdou Aziz seen protégé la parce que li nga xam ne jëmmal wala lu ko mën a wane ba mun ko wane seen protéger la rek bi nga expliqué mhm. wala déglu sa temps yëpp effectivement dagguma la mhm. kon baa ma expliqué waaw mais booy wax dinaa la relancer parce que dañuy waxtaan débat contradictoire lañ dinaa la wax naa la relancer parce que ko bu la neexee tamit nga def ko da nga bëgg débat bi demee noonu aussi waaw dàqoo ma ko kenn dàqu ko kenn sans problème kenn dàqu ko kenn baa ma expliqué xamul tax non dama ne non xamul ah, ko dégg am na loo xamante ni bu ñu ko defee mm-hmm. coowa loolee nekk ci plateau bi sénégalais yi ñuy déglu mm-hmm. du ñu am dara lu ñu ci dégg parce que mm-hmm. sama kàddu la contre sama bos te walaay xam naa ne gënoo maa gën a rëy làmmiñ kenn gënu rëy làmmiñ kenn donc ko canaliser su ko defee nañ ko canaliser su ko defee sénégalais yi ñuy déglu mën a mën a mën a am li ñu am effectivement euh, Anita boobule xaw ma il xaw ma elle en tout cas mu ngi def un excellent travail loolu xam naa ko parce que mboolem loo xamante ni naka sa dut noonu la muy fenn wala kàcc. wala loo xamante ni manipulation la. bu ñoom dugal ci biir réseaux sociaux yi dana ko démentir ba mu set wecc génn ko teg leeralal nit ñi ne nangam ak nangam moo ci am. moo tax la c'est un travail à loolu loolu benn la. beneen bi mooy concernant li nga xamante ni moom moo si am si verdict man sama position changé wul moom day wax position mais na jàpp bosam mais bu mu xam lu ñu la moo ci suñu mhm. ni ma ko ni ma ko doon waxee depuis le début. noonu laa koy waxee waat tey ba suñu jonn yàlla tey jii li may wax mooy Ousmane ko dafa violé wala violé wul. Mhm. man loolu dugguma ci xam lu tax fekkewu ma ndax dafa doon viole wala violé wul. Mhm. parolu benn jigéen la bu ñëw taxaw ne dag maa siif kii ne taxaw ne ko siifuma la. Mhm. lu tax ma war a mën a gëm kàddu Ousmane ko bàyyi bu Adji Sarr. parce que moo sell. lan moo tax ma war a mën a gëm bu Adji Sarr bàyyi bu Ousmane Sonko. parce que sellu maintenant diggante boobu la xew gannaaw suñu borom muy moom muy man.